communication la ma eh, lay wax leen Kajoor dama ni très souvent on répond en fonction de ce qu'on a compris qu'est-ce que j'ai compris j'étais responsable syndical je ne suis plus responsable syndical là où je suis est-ce que je suis satisfait par rapport au travail que je faisais mais ci ki nga xam ne moom moo nekk tey ba nekk ci wetam liggéey boobu est-ce que am na continuité man loolu laa comprendre wande nag ci ki nga xam ne moo ma remplacé par respect aussi non par respect aussi uh-huh. au SAEMS et connaissant le fonctionnement du SAEMS uh-huh. il m'appartient pas moi Saourou personnellement d'apprécier ce que mon prédécesseur est en train de faire vous savez pourquoi eh, par éthique j'ai fait ce que je devais faire et celui qui m'a remplacé c'était mon adjoint comme tey mu ngi dérouler si je veux être objectif je le laisse dérouler jusqu'au bilan comme je suis membre du syndicat man comme tous les militants du SAEM dinañ déglu li nga xam ne moom la militant yi di wax ci li muy def waaye man personnellement nag jàpp na il est sur la très bonne voie mu ngi jóg ci mbiru jàngalekat yi mu ngi ciy taxaw au quotidien et loolu je crois que pour qui connaît le secteur l'actuel secteur général <laughs> lui il fait partie des premiers membres fondateurs du syndicat à partir de ce moment mun naa wax ni lu mu xamoon ci syndicat bi man bi may accès ci syndicat bi man xaw ma ko woon parce que moo ma ci jiitu kon donc kooku bu ma remplacer je n'ai aucun doute que ligne bi nga xam ne moom la syndicat bi am foofu lay tegee bu dee loolu woon mooy la question.